الرجال في سل لنا به رآب به الجميل من ذكره واللطف moo tax bi nga xamee ni teraanga ji agsi ci moom moo tànnul boppam délégation bi ci mboolem buntu kër Serigne Ahmadou du Xabbaan di ko dalee kër si Ibrahima Xujja di taawu Serigne Ahmadou Ndoumbe Xabbaan waa këram ñu ngi fi Serigne Modou Xabbaan Mbàkke nii waajuru xalifa bi waa këram ñu ngi fi koo xam ni déet ñu ngi waajal bis bu mag di ziar général boo xam ni bis bu mu fonk la sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali yéen bokki boppam yi buñ ca àggee jàmm mi ñu ànd bis bi nee na mi ngi leen ci woo ñu ànd ak noonu ndax lépp suñ a la jëm kon dañuy ubbi rek bañ a guddal kàddu gi sëriñ Ousmane mooy wax ci turu délégation bi dina waxtaan ak yéen ci kan mooy sëriñ Moundoumbe Xabane mi nga tudde bis waaye balee loolu dinañ ko laltaayal incha allahu taala laltaay mel a mel ku fi nekk di déglu bu sëñ Ousmane ñëwee li nga gën a xam kat mooy sëriñ Ahmadou Ndoumbé Xabbaan allahu wa baaxee subhanahu wa waaxee wa nahnu fi kannatihi lmanihi min kulli sharrin wa asasanihi mustamsikina bil xeex Cheikh Ahmada xayrul anami muntaha wa mubtada man xaalaha fi samani wa baayin amanahu lahu min albalaayi allahu min kulli karimin akramu man amahu xaadalahu takarramu aslim lahu kullaka an himaani wala simil hisan li rahmaani waajihu bi sukri bila kufraani tug fa isaabuhu maa niraani barkat Sëñ Ahmadu Ndumbe ak njabootoon gépp mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi jotaat ndigal lu bàyyikoo ci sëriñ bi dellusiwaat ci noonu doo ngay tarbiyee yëpp yim aju ci dende yëpp démb lañ ko doon saraxal muy Serigne Thierno Ngom ma bëggan bala ñoo dugg ci waxtaan wi kenn ku ne ci nun musula saytaane jéggul yàlla mënu bind te julli ci yonentam bu tedd bi jàng fatiha benn yoon tekki sootu lixlaas ñetti yoon te jàpp salaatu ala nabi nu ñaan saa borom dellu ko yërmande bismillah kuy tàmbali nga yéene bismillah su ko defee Serigne Ousmane Serigne Ousmane Niass ñoo ngi lay jottali lenn ci kàddu sëriñ bi yaa mbooloo mi nga àndal defati ngeen lu rafet defati ngeen ñu ko mat ñii toog ci kaw Serigne bi lañ fi neel man ñii ñu yéen maa fi nekk doog ay tër bi kër Cheikh Mounou yëpp. ku dégg ni maa nga fi rek ne ni teew nga fi kon nu jotul leen kàddu yi sang yi nga xam ni lii ngeen di defal ñor nañu te it am bisub lislaam bu Serigne ko Cheikh Ahmadou Ndoumbe ngay def ñor na la. kon noo ngi leen di sant bu baax yàlla ngeen ko yàgg def tan lay ci ngërëmul gaa yi baax yàlla na Serigne Touba yi yëpp ak Serigne Touba. kon nu maa sa déglu rek asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo bi ñu àndal. tey jii li yàlla dogal mooy Serigne Ibrahima Khoudia moom Serigne Modou Xabaan moo toog ci loolu Cheikh Ahmadou Ndoumbé ak Cheikh Modou Xabaan yàlla na gën a yàgg. moo nu yabal maag rakkam yu baax yi ak doomam yu baax yi ngir ñu teew ci bis bu tedd bii ngeen xam ne liggéeyal Serigne Touba rek tax ngeen taxawal ko yàlla nañ ci am ngërëmul Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke doomi Serigne Abdou Houmé Serigne Abdou Houmé nag. sëriñ Abdou Khadir mooy turam wu mag ku laal ci jolof di nga xam ni bari ñuy dàkkante la ci nit ci way juróom mu jigéen waaye sëriñ Abdou Khadir jilaan la ko sëñ Tuubaa tudde te moo ko tudd moo jiite mbooloo mi mi nga ànd ak bi baax ñu koy wax sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Abdourahmane mi nga ànd doomam bi baax ñu koy wax sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Mamour Dendey sëriñ Mamour Mbacke Ibrahima Xujje mi ngi fi sëriñ Xabaan Mbacke Seexuna Tawa mi ngi fi sëriñ Cheikh Mbacke Xabaan Abdou Oumy mi ngi fi sëriñ Cheikh Mbacke Fallilu Abdou Oumy mi ngi fi sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Mbacke Cheikh Bintu mi ngi fi sëriñ Ibrahima Mbacke Cheikh Bintu mi ngi fi sëriñ Jiili Mbacke Cheikh Bintu mi ngi fi sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Bachir Mbacke Fallilu Oumy mi ngi fi sëriñ Moutala Mbacke Seexuna Tawa mi ngi fi sëriñ Saara Mbacke Seexuna Taw mi ngi fi sëriñ Ibrahima Mbacke sëriñ Abdou mi mi fi sëriñ Baye Cheikh Mbacke mi ngi fi sëriñ Seexuna Mbacke Abdoulaat mi ngi fi sëriñ Seexuna Mbacke Basiiru mi ngi fi sëriñ Jiili Mbacke Ibrahima Xujja mi ngi fi sëriñ Abdou Guèye Mouride mi ngi fi mooy wax nii sëriñ Mor Wade moo njëkk a gi sëriñ maam sëriñ Mor Mbacke Mbacke Xewar mi ngi fi. sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Badar moom bi bu mi ngi fi ñooñu sëriñ bi yabal boole na ak ñoom nu teewal leen ci fii ci seen bis bu tedd bii ñi ngi ñaan suñu teewaay bi yàlla bu mu bu ñu teewaay ku dégg kàddu gu mbaa nga taxaw ci baax yàlla nga fekkee déwén ñi ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura di leen ñaanal xew ñu mën a liggéey sëriñ Tuubaa ak lu ñu seetoo njaboot ñi ngi gërëm ñëpp di sant leen ne daal li ngeen def na

baay li walikan balaqna adduna yow noo la fase bu ma juróom ñaari fase soo doon jigéen tutum dose sa wari landina allar ba jeej moom sase allar ba jeej moom sase keroog ba tey laa la fase di sant bu baax sëriñ Muntaxa yal na ko yàlla yàggal te wéral ko di ñaanal bu baax na suñu jàmbaar yi nga xam ne moo nu may jotaay bii ñu am tey muy sëñ yàlla yokk leeram di sobal suñu kàddu ci kàddu yi nga xam ne mooy kàddu mag ñi rek ndax lii ñu ngi def tey day sedd na suñuy xol lool tey dëgëral suñuy cër ndax ci biir liggéey sëñ Mandoumbe bii ngeen di dugal am na solo am solo goo xam ne ñun dey tawféex du wér rek lañ ci gis ni ko sëñ Mamour waxee rek noonu la amee suñu waajur ya ñoo jaxasoo woon ci lépp rawatina nag ma ngi taalibe yi nga xam ne ñoo newoon ci kër yi yaakaar naa ni ku xam diggante kër sëñ Mandoumbe ak ñee ñooy Tuubaa moom yaatu na lool day gudd waaye ñaareel ba mooy suñu waa kër Baye Assane Thiam ak Baye la Cheikh Mbow duñu woon ñaan kenn lañu woon loolu dama ci nuyu Baye Sidi bu baax ndax ku ci mag séeréer tamit may dégg te wolof yi dañoo wax ni séeréer mbay dàggal muy ñaari jëmm yoo xam ne dara ñoru leen woon lu def rek ak bokk daa am loo xam ne nag ngor da koo mayewul ñëpp toog nga wax sa wajur moo baax moo def nangam waaye lu wax ci moom rek am na lu mu bàyyi waaye daa am loo xam ne nag ngoro du ko mayut waaye li mu def ci ñun kuñ ko def ci moom fit ak njàmbaar ak ngor dana des ci yow loolu rek lañ leen mën a wax ci alaaj Seex ci lu mu def ci ñun bërëb bii ñu toog na seede la ci li ñuy wax ci moom ndax bu amee lenn lu ko ñoddee ngir yàlla sëriñ bi la ak ñeeñu gi nga xam ni nekkoon ni ci seen biir di ko dundal amul woon lenn lu ko gënal luy des day ci ñun ñi lay waaye du ci moom ne daa ci ngaalaa moom moom waaye di leen jot li bu baax nag kàddu yi nga xam ni ñi fi bàyyi te wutu ginnaawam ñoo yable délégation bi ñu àndal tey te xeeb ko lool nag muy suñu bàyyi Modou Mbow nekk ci réew ma ci Hollande ñeneen ne ngi am ci yéen mbégte kontaante bu baax a baax a baax a baax noonu lañ ko àndee suñu bàyyi Afrique mi nga xam ni moom nekk suñu bàyyi fii nga xam ne mooy ci biir dëkk bi waaye xat-xati jamono jàpp ko mu yabal suñu baay Moussa Gueye mu bokk ci biir délégation bi ñu ànd ak moom ànd ceeg suñu mag Mamour Sànq Sëfoor mu nekk ci biir délégation bi ñu àndal ànd ceeg sëñ Pape Mbaye ànd ceeg it suñu maam moo xam ne sëñ Talla Sëy nekk ci biir délégation bii ànd ceeg suñu ab dëkkandoo boo xam ni bokk na ci ñun te li ñuy wax rek lu wolof yi wax rek dëkk ju yàgg moom loo ko xamul mu déggaloo suñu baay boole ñoom moom muy doomi am di jaw mu nekk nii ci biir nga xam ni lu bëri xel suñu diggante kon ànd suñu mag yi nga xam ne ba suñu baay demee ba tey jooy ñu dara nax moom muy sëriñ Cheikh Mbacke Mbow dëgg la nag magam moo moom jotaay bi mu toogee waaye Cheikh day fii mu ko wutu ci ñun dañoo xam ni yéen ñii tey kenn duñu tuddee doomi baay Cheikh yéen ay doomi baay Cheikh wax ko da koo jëf te sëriñ Ousmane nag may dégg bu baax ak mbooloo bi samay biiri bokk laay waxee ci ñi ma bokkal bàyyi amu ci lenn loo xam ne mas nañ koo wax lu dul fi ma bëgg ngeen jaar fa de mooy fii gone yi jaar fii ngeen jaar li yoon bi nag mooy lan mooy daayira Sahaadatul Muridiin bii ngeen xam ni kat fekkee ma wuuteem nii ngeen ko doxale tey wallaahi na yàlla na suñu borom ay ñaxam yàlla na yokk ay leeram taxawaay bi am na solo lool ndax lenn amul solo lu ak mbokk leen nit amul solo loolu nit ku jàpp ak bokkam te da cee wax lu baax dañ ca def ndax jamono doy a waar xat na waaye ni ñaanal baax suñu mag ja sëñ Modou Mbow na ko yàlla indi suñu kanam te yàggal ko te wéral ko noonu lañ koy ñaanal suñu Baye Bara Touré muy président d'honneur bu daayira bii suñu ko te ko di ko ñaan suñu Baye suñu Caam moom it suñu borom yàggal ko te wéral ko ndax ñoom it tekkuñ seen laxaasaay suñu Baye Ibrahima Caam noonu buñ ko limee day waaye di ko ñëw nag di ko ñaanal ci président actif muy sëriñ Ousmane sëriñ Ousmane jàppal te gën a dëgër ay ñeeño lañu ñu ngi nii toog muy lu naqaree jiite nag waaye dox ci taggur raaka dara ñàkk yàlla la nag mooy indi lii yëpp amul kenn ku naan su doon mën a ba muy moom li nga ji def du ko def kon nag nañu jàppaat te gën a wóotu te gën a defal yàlla na suñu borom dimbali nag ba lii nga xam ne ab taxawaay la suñu borom sàmmal ñu ko làqal ñu ko fu làq yëggul te boole ñu sëriñ Tuubaa mi ñu ko saxalal waaye ñu ngi fàtte suñu yaay yi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy yaa xari mbow soxna mu xayri taal moom it ànd nañu moom ci délégation bi ñu àndal kon daal yaa nañ suñu borom dafa sant baale ni gën ñoo làqal fu làq yëggul gën ñoo boole mbooloo bi luñ ci jëf na xeer nañ ko wallaahi na si suñuy xol sedd na suñuy xel daal na jërë ngeen jëf sëñ jiidi mii moo ñu ko wax loo di nuyu daayira bi nga xam si ne mooy amal lii muy saadatul muridina ci ñi ko seq mooy tëgg maa ko wute ngir lépp di ci ak mbokk sëñ Moussa Ka dañuy sëñ Tuubaa defar nga say mbokk defar ay jaamam ba ñëpp jar nga jàpp sa jaamam su ne ko defar nga ay jaamu sax mën naa mooy na mu war a mel du waaye dina ko defar nga say mbokk defar ay jaamam te lii bokk na ke lii suuxat am mbokk na ci li koy fii ñu koy woote dugg-dugg rek andi fi ab tànt dugg-dugg baas saada du dina ñëpp ci war a ndax ñépp ñoo bëgg a texi te te baat bi yaakaar naa bu ma juumul mu ngi teg texey mur yëpp kon loolu ñëpp ñoo la bokk waaye Baye Assane li nga xam si ne moom lañu dara jaare bisi bi wax na ne ma ne bu dee lu jëm ci wàllu weñ bokk na ñi nga xam si ne tubaaboo ne benn doon a ñaar te lii luy dundal ak mbokk la luy suuxat ak mbokk la nga bokkoon ak nit lenn yàlla suñu borom jëlee ko fi nga koy rendre hommage loolu war naa mën a nekk sëñ jii nag moo jox kàddu bi ngir ñuy wax loo ñuy wax bi mu ñëw jàkkee suñu mbay njaay mbayum gerte ñëpp ñëw yépp sëñ Ahmadou Ndiaye lan di moom ñëw na li sëb sëñ Mbaye Ndiaye bañ moom bii di ñëw ñoo ànd ñëw ak sëriñ Cheikh Dia ñii doon jàng xasaay bi ak sëriñ Liman Lo jàngalekatu alxuraan bu dee jigéen ñi soxna Farim Farma Thiam ak waajuru sëñ jii di mii soxna Diop yow juñ bokk na ci délégation bi ak Cheikh Seydou Mokhtar Gueye mii al amin nekk sunu gannaaw ak sëñ Khalil Dione ak Serigne Saliou Ndiaye ak Serigne Ndiaye Thioub moom tamit ñëw na ak Serigne Saliou Gueye ak Pape Diop Seck waaye lii li ma ko sëñ Gueye waxoon sax ëpp na lii xaja nag waram lay wax ne lu ñëpp bokk rek lu jawaay am rek mu doy. loolu léegi waaye xol gën a seet lii ngeen def ndax Baye Assène daayira bi bokkoon na ñi nga xam si ne suñ jiiri bi wax na ma ne si jëwri ñi la bokk nit nag bu ngeen di ànd yàlla dogal nga jiitu nga jàpp ne da nga ko ci fàttaliku loolu ak dëgëral ak mbokk gënu koo kawe doo ñaan ji baax sëñ bi baax doo leen sëñ bi yàlla ci yàlla ci loxo ñu dem ba mujj ci gone yi ndax lii gën tey tegalee dañuy wax ne bu jubee ca ndékk bëri gone tey liggéey bépp seen loxo rek lay mujj ay yéen mag ñi bu ngeen leen gungee ban ak influence mooy toog ngeen ceeb bi ba mu kenn ku ne cib nga ab cib teg ko ci loxoom lay jommi na sàqam te nag mu ne wax yaa koy defal sa bopp lu ngi ñaanal Cheikh mun na faa mu yàgg fi lool te ànd bi yaram kàddu yooyu daal ne naa ko wax bu di jublu ne maa ngi koy sant yàlla sëñ Moustapha mooy taw ay aset moom tamit wax dëgg yàlla teew na ak i rakkam ñoom sëñ Bakay ñoom ñëpp teew na kàddu yi ñuy dëng lu ne ñu koy jégaluwaat bu baax bu jub tamit ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha mu yàgg suñu lool ci ànd ak wér-gu-yaram bari ko Xaadim teew nii di waa kër sëñ Ahmadou Ndoumbe. may siyaare bu baax sama sëriñ ji toog nga xam ni yàlla dafa dogal ni alxuraan jéem nañ koo def noonu ak saa bopp bi sëriñ Cheikh Bintou ba laa dëkk man moom xam nañ ma loolu ñu naan àllarbay kare fa ko daal jullee waaye ma dem ci saa baaxu rek ñu bàyyi ma ci ana ñeneen sëriñ Touba yi Ousmane ñeneen yi amati naan Nuuru Daara ne ma ko nettali ci jamonoy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daara bi jógee Ndakaaru benn géer a nekk ci daayira bi benn géer mooy bàyyi xaadim bi Nuuru Daara nii bis ay ñeena la ñu ñëw siyaare Cheikh Abdoul Ahad Cheikh jox leen dañu guro ah Cheikh Abdoul Ahad ne leen guro gi ku dutum ñeena bum ci yëy eh? te benn géer a nekk ci oto bi muy séddale di séddale di séddale di séddale def ci poosam Cheikh ko dama la ni ku mu taxaw ne ko ku bëgg a jëriñu doonul ñeeñoo bàyyi laaj ni ko tibal dox ma ana ñeeñooy Serigne Touba yi am ndaw ana ñeeñoo yi ku yéen a loxo ca du la taxaw wala seen bopp ñeeñooy Serigne Touba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen indil nuyoo Serigne Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Ahmadou Ndoumbé di leen indil ndokkeelam waaye di leen indil nuyoo jëwrinam muy sëriñ Cheikh Bintu Mbacke waaye di leen indil nuyoo mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Ndoumbé ci mboolem kër yi nga xamante ni mooy bunti këram ginnaaw bi ñu leen joxe nuyoo sëriñ Saalixu Mbàkke mii toog di doomi sëriñ Abdou Ummi mu ñu koy wax sëriñ Abdul Qadir moom Cheikh Ahmadou Ndumbe moom mi nga xam ne mooy jiite délégation bi bi kilifa jataay bi kàddu yi ñu di ko yëkkati ci ndigalam ñu feggoo ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdourahman Mbacke di sunu waajur moom it ak sëriñ Ibrahima Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne am nañ ci délégation bi sëriñ seex Badar Mbacke bu sëriñ Habib mbokk yi nañu xam ne kër sëñ ma nume ñëpp ñëw ndax buntu kër yi nga xam ne mooy buntu kër Cheikh Madou benn buntu kër desul sëñ Ibrahima xujja mi nga xam ne mooy njëkk a doon xalifab Cheikh Ma Ndumbe di taawub sëriñ Ma Ndumbe ak njabootam ñi ngi teew muy sëriñ Modou Xabbaan ak ay rakkam ci ndigalul xalifa bi muy sëriñ daan moom sëriñ Cheikhouna Tawa sëriñ Modou Xabbaan Mbàkke mi nga xam ne moo ci topp xam nañu ne Serigne Ibrahima mi nga xam ne mooy boroom kër gi yàlla teg kër gi ci loxoom lépp luñ fi def wala ñu di ko wax lépp ci ndigalam la ak ci ndigalu jëwrinam kon ñi teew ñépp moom moom la teewal Serigne Abdou Rahman mi ci topp tamit gis na ni sëriñ Cheikh mu ngi nii teewal fi Serigne bu Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdou sëriñ Abdul Qadir Mbàkke moomit mi nga xam ne moo ci topp sëriñ Saalihu Mbàkke mi jiite délégation bi mi nii teewal fi sëriñ Xabbaan Mbàkke moom sëriñ Abdu Ummi mi nga xam ne mooy xalifa ak njabootu kës ñëpp mi gépp sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh ma it sëriñ Cheikh Badal mi nii toog teewal fi sëriñ Ibrahima mi nga xam ne mooy xalifa bi sëriñ Habibu loola kon liñ ci dëgge mooy waa kër sëriñ ma numbe yëg nañu bis bi nga xam ne yéen mbokk yu baax yi jël ngeen ko féetale leen ko tudde leen ko bis bu rëy la ci ñoom bis bu neex la ci ñoom moo tax ñu jël délégation bi boole ko mbokk taalibe yu baax yi bu ma ci tuddee Baye Abdou Gueye Mouride Sadiq ñépp dañuy duggaale ci biir loola kon day tegtale ne kër gi ñëpp ñëw nañu sa bii muy saadatul muridin ci njiital Serigne Ousmane ni ma ko waxe maa ngi yëkkati nuyoo boobu ci turu mbooleem njabootu Serigne Manoumbé di ko teg ci sa loxo di ñaan nga àggaleel ñu ko ci mbooleem mbokk yi nga bokkal liggéey bi di leen jottali cantuk sëriñ bi. ak mbooleem njabootu Cheikh Mandoumbe yëg nañ cër bii ngeen jël jox ñu ko safoo nañ ko rëy na ci ñun ndax xam na ne lépp sëriñ bi la dara génnul ci sëriñ bi rawatina lii ngeen def te muy lu neex sëriñ bi muy ay bokk yu booloo te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke daan wax ne képp kuy liggéey ci luy dajale mbooloo soo ko yëgee ak soo ko yëgul yaa ngi liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi moo wax ne yaa rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa wa shamlaj maa mooy lii fexe ba mbooloo mi daje fexe ba nekk benn kuréel di xàccoondoo di dóoroondoo loola mooy tax mbooloo ñu mën a jariñu ci la ñu séq sëriñ Abdul Ahad waxoon na mbooloo moo gis la ñu balu ñu caa mën a jariñu man caa jariñe dañ koy def ne wenn say waaye mel na ne yéen li ngeen séq def ngeen ko ne ko wenn say muy li boole tëgg yi ak maabu yi ak wudd yi ak géwél yi ni ko mbokk mi waxe léegi kon ñëpp ñu ngi ci biir noo ngi leen di sant ci booloo googu waaye ci bis bi ngeen taxawal te mu mel ne li ma dégg ñu ne moo ko sos wala moo ko waral mooy màggal sancu Touba loola nag yàlla da leen ko cërilee waaye nañ xam ne ñépp a ko bokk ndax Touba Touba ak ñépp la bu ñuy wax yoon wi kenn du ci génne Touba mooy Touba te kenn ku ne xam ne ne sëriñ bi ni mu fonk woon barab bi ak ni mu ko sance ak li mu ci digee ak li mu ci digle ak li mu ci ñaan nga xam ne barab la boo xamante ne nii képp ku jóg ne yaa ngi koy màggal ci sanc ba na la wóor ne ñëpp war nañu ñëw ànd ci ak yow barab bii di Touba bi ko sëriñ bi santee ba noppi ba suñ borom wan ko ko loolu war a toll ci amu wachas muy 1306 di benn fanu rajab war a toll 8 mars 8 mars ci 1889 donte sax wàllu taarix léeg-léeg wute dana am 1888 1889 waaye xay na ci ñi ko fi ñu ko jëlee ñoo it jëli nañ ko ci jëluwaay bu wér ci kon ci dat boobu ci lañ sanc barab bii di Touba biñ ko saccee ba noppi sëriñ bi bi mu ñëwee xaside bi mu ci def béy bi mu ci jëkk def da koo sant yàlla alhamdulillahi alkarim sil minan على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معاقني maa ngi sant yàlla mi ma indi ci Tuubaa gii nga xam ne bi fi ñëwee lépp lu sama gàllankoor deñ na ñaan ne yow yàlla sama dëkk bii de yàlla nag ko defal aaral ma ko fi dëkk te defal ma aw turam mu mel ne tur wa nga xam ne ma nga amooy turam wa ca àjjana yaa man ala an zawjatin wa an walad xutni wa xut jamiha ahli thal balad wajal ilahi maskani tuuba abad nisasmiha bi jaahi xayri man abad wax ne adcuuka an tajcalahu daara tuqaa wal ilma wa diina wa daara lirtiqaa wa maskan ij'al maskan al-ghufrani wa rushdi wal irfani wa ridwani wa daara ikhlaasin wa sidqin wa wara wa daara sunnatin wa man jam min bida kon li ma bëgg wax mooy sëriñ bi barab bu mu fonk barab bu mu ñaan yàlla waaye barab boo xam ne ku gëstu xool lim ci wax te gëstu mag ñi mu defaroon da nga xam ne dëkk bi mooy mag ñi mag ñi mooy dëkk bi ndax li mu wax ne noonu la dëkk bi noonu la mel mag ñi noonu la ñu meloon kon bu yàlla dogalee ñu tànn Serigne Mandoumbe euh, bis bii tey ñu tuddee ko ko ña ko tànn de mel na ne déy nañu leen ndax Serigne Madou yaakaar naa kuy def bis boo xam ne nii ku xam digganteem ak ñeeño yi waaye xam digganteem ak sanc Touba soo defee looy tuddee wala looy màggale sanc Touba tuddee ko ko ku xam dana xam ne ñii de def nañ lañ war def ndax moom da cee bokk ci sanc bii ci barab bii di Touba yaakaar naa ne pàkk bii ñu nekk jumaa jii ñu nekk daaray kaamil gii ci sunu wet jëm ak barab bii ñu jàkkaar lool xam nañ kan mooy sëriñ ba numbe ci ab taxawaayam ci sanc bi bi ñu koy sanc bokk na ci ñi nga xam ne àndoon nañ ci liggéey bi ci taxawu sanc ba bi ñu ko sancee ba noppi ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi njëkk a def daaree tërbiya fii donte ci Mbàkke Kajoor la waaye ñi nga xam ne ñoom la njëkk a def daaree fii mu doonoon fukki nit ak juróom-benn mu defoon ko ci ñeenti daara sëriñ ma Ndumbe mi nga woon ci biir. mbooloo mooma kon sëriñ Madou bu ñu waxee sancub Touba sëriñ Madou mooy sancub Touba ngir ab taxawaayam kon bu ñu demee ba tudde ko bis boo xam ne nii la ko sabab mooy loolu damay wax ne mbokk yi la ngeen lu war a def def ngeen ko ka ngeen ko war a jox jox ngeen ko ko kon yàlla yàlla nangu liggéey bi te gërëm ko amiin amiin xëy naa ci gàttal des na tudd tuuti rek ci sëriñ Madou comme yàlla dogal na mooy moom lañ ko tudde waaye ñu xam di ma ko waxee sëriñ Madou buñ ko waxee day mel ne wax nañu mboolem mag ñi ndax ñëpp defarub sëriñ bi la ñëpp sëriñ bi moo leen moo leen duy sëriñ Madou nag deesul mën a waxtaanee nit te lu ñu mën a wax duñu wax aw askanam wax ja nekk àddunaam donte dañ ci jaar jaar bu gàtt kan mooy a Cheikh Ahmadou Ndoumbé Serigne Ndoumbé mooy doomi Sayar sax soxna Buso mooy doomi Seydou Mati moom Sayar soxna Buso mu maam Axaram Mbàkke mi ngi gane àdduna ci 1859 ci barab bu ñuy wax Njax ci Xuru Mbàkke waajuram wu góor mooy saydu mati di doomi seer soxna bu sa mu maam ahra waajuram wu jigéen mooy soxna ndumbe ñang moom baara anta ñang moom sëriñ daanu ñang mu bokk ak sëriñ tubaa nag ci ñaari wet yépp ba tax sëriñ Musaa Ka di wax ne ñoo bal fa mbokk ga jaay jënd ngërëm wàcc na xëy na bu ñu duggoon ci li tax sëriñ Moussa ko wax ne ñoo bokki lay te bokki bàyyi xëy na dañu bañ a guddal waaye kon dañu la xool ci ñeenti wet yépp yi nga xam ne moo sëriñ bi dañuy daje ci ak bokk te muy bokk bu jege loolu waaye la ko gënal loolu nag mooy mu jaay ko jënde ko ngërëmul yàlla ginnaaw bi mu gënee àdduna ci année boobu ñu wax ba mu tollee ci ati jàng mu jàng ba li mu war a xam lépp mu xam ko yaakaar naa bu ñu waxee ñi ko jàngal dañu xam ne kii boroom xam-xam la sëriñ Modou am njàngam génnul ñetti ñii muy way juróom mu tedd wa di sëriñ Seydou Mati moo ko jàngal alquran moo ko jàngal lu baree baree ci xam-xam te Seydou Mati nag géej la goo xam ne nii fu ne la nit daan jóge ngir xam-xamam bu bari woon Serigne Moussa Ka seedeel na ko xam-xamam bu bari mboolem ñim jamonoonteel xamoon nañ xam-xamam bu bari moo tàmbali sëñ Madou bi mu jeexalee alxuraan tàmbali ko njàngum xam-xamam ba mu dem ba yeewu ci wàllu xam-xam waaye jërëm génn àdduna fële ca Saalum ca Poroxaan mu laq ginnaaw ab diir mu laxas ngir yokk xam-xamam ci waaye jërëm Serigne Mamour Anta Serigne. sëriñ Maam Mor Anta jàngal na ko ab diir ginnaaw ba sëriñ bi jëlal ko boppam yoral ko boppam di ko jàngal lam ko jàngal ba mu dem ba géeju ci mboolem xeeti xam-xam yi ba sëriñ bi wóolu woon ko doyloo woon ko ci xam-xam ba liggéey yu baree baree bare yu jëm ci wàllu xam-xam sëriñ bi daan ko koy liggéeyloo bokk na ci daan ko utloo ay téere bokk na ci ba mu demee ba soxla kërub téere boo xam ne lu dellu ci xam-xam la moom la joxoon ndigal mu defal ko ko muy barab bii ci Touba ba léegi barab bi mi ngi fii di ko seede te mooy école Daaru Xuddus bi ci biir kër biir bayt loolu sëriñ bi du moo ko def te xam-xam moo taxoon mu defal ko sëriñ bi te sëriñ bi xam ne ne kenn ku ne la nga mën a rek la lay liggéeyloo xam-xam du ko liggéeyloo mukk ku dul kum wóolu ci xam ne lii mën na ko liggéey kon bokk na ci ay liggéeyam yaatu na waaye bokk na ci liggéey yoo xam ne liggéeyloo woon na ko ci xam-xam ginnaaw bi mu xamee ba ba mu ko jànge ba noonu mu yar ak njabootam nag ci loolu bare na lool ci ak njabootam yoo xam ne ni taxawul na leen ba ñu géeju ci xam-xam ba am na ci ñoo xam ne nii sax wax nañu ne lu tollook ñeent fukki kaamil bind nañ ko ci seen loxo jébbal ko Serigne Touba te loolu Serigne Modou moo nekk ci seen ginnaaw taxawu leen mën a am kon pour liggéey la ci alxuraan pour liggéey la ci xam-xam liggéeyal ko Serigne Touba. jàngee ba la war a xam xam ko mu daal di jaayante ak Serigne ci Mbàkke Kajoor ci 1883 mooy at mi Serigne bi wootee. wooteem bu siiw booba sëriñ Modou bokk ci ñi njëkk a jaayante ak sëriñ bi ànd ak sëriñ bi taxoo ak moom di mu am jikko bu jikko bu yéeme boo xam ne suñ borom baaxe na ko sëriñ ma numbe te comme yàlla dafa dogal bis bi ñu di ko tudde ay mag damay jàpp ne mag mu ci nekk xam nañu ne am na jikko yu nekk ci ñoom yoo xam ne bu ñu ko jëlee jàngat ko fexe ba fañ tegoon seen tànk ñu teg fa suñu tànk jàpp naa ne lu ñuy naqare ci njaboot gi lu ñu naqare ci àdduna lu ñu naqare ci jikko yi loolu rekk moo ko mën a saafara jikko boobu bokk na ci jikko yi nga xam ne ni moom amal na ko moom sëriñ Madu ginnaaw bi mu jaayantee na mu taxawe woon ba mu demee ba ci digg liggéey ba ni mu taxawee ba ñu demee ba sëriñ bi wuyu si boroom dëkk ñëw dëkk si Tuubaa gi ni mu taxawee danga xam ne amul lu ci soppi ko benn taxawaay rek laxasaay ga mu takkoon ci Mbàkke Kajoor ànde ko ak sëriñ bi ku ko gis da xam ne moom de minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullaha ba keroog nga ñëw ci dëkkam bii di Tuubaa moo tax noonu Serigne Moussa Ka waxoon ne keroog ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na àllarba ak dibéer la xewal mu daldi keroog ba ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na àllarba ak dibéer la ñu xewal mu daldi buur soobu ci yoonu àjjana jébbal sëriñ bi ab nosam def gumba jox ko ab tumam fu mu toll sàkkuy ngërëmam laajal sëriñ Isa fekk na wala laajal sëriñ daam fekk na nee na keroog ba tey mës la taay mës la jataay mës la tekki laxasaay mës la xëy dellu ginnaaw keroog ba tey mës la yaay mës la taay mës la mës la tekki laxasaay mës la xëy mës la wax na sonn naa keroog ba tey mës la taay mus la yàgg fib jataay mos la tekki laxasaay mus la wax ne sonn naa keroog ba tey mooy bi mu jébbaloo ci sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor ba nii mu wàccee war a fekk si sëriñ bi diggante boobu bépp mosu fee fekk laxasaay mosu fee wax ne sonn naa loolu li koy tegtale ci njëlbeen gi sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana mi ngi ñuy leeral ab taxawaayam ab liggéeyam mi ngi wax ne faalam anna rajula ibna ammi shayqi wa qarinahu baa nafsuhu lillahi wa tajarrada li xidmati shayqi waxidan kaabada al ahwala waqtahama al mashaqa wa kaana yaxdumu laylahu wa nahaarahu ci njëlbeenam nii la taxawoon digganteem ak sëriñ bi di ko liggéeyal guddi di ko liggéeyal bëccëg wa yabfilu qalilahu wa kathirahu su amee lu bari jox ko su amee lu néew jox ko fu sëriñ bi nekk mu nekk fa fu mu toll sàkku yi ngërëmam fu mu toll di daggu bànneexam ba ni sëriñ bi ñëwee Mbàkke Bawal ba ni mu sanc Daaru Salaam ba ni mu sanc ba ni sëriñ bi demee ci géej gi ba ni sëriñ bi ñibbisee ci géej gi ba ni sëriñ bi ñibbisee ci Touba ci wenn doxin wii ci la ma sa dox monsieur tey deltu ginnaaw loolu ko li ñu ci déggee te man ko cee jàngate mooy li ñuy tudde ak dëggu ak dëggu dëggu ci lépp looy wax waaye dëgg ci lépp looy jëf waaye dëggu ci lépp loo fas sa digganteeg sa borom waaye dëggu ci lépp loo fas sa digganteeg sëriñ bi nga xam ne moo dox sa digganteeg sa borom. moo tax sëñ Moussa Ka nee na ko yaa yor ngëmub boole ca dëggub Omara boole njàmbaarub Xaydara sa fit wu rëyu lànd na sëriñ Madou. ku dëggu la woon ci lépp te mbokk yi nañu xam ne ak dëgg lu waaye masa am ci yàlla ak dëgg la ko may qaala allahu hada yowma yanfaau saadiqina sidquhum li yajzi allahu saadiqina bi sidqihim moo tax Sëriñ Tuubaa nee na ko Ahmadu Mudu Saadiq la yaa defal Ahmad ibn Saïd ngëm ko ànd ak dëggal ba am ridwaani kon mbokk yi nañu ko roy nañu ko roy ci jikko bii nga xam ne lu waaye mas am ci sëriñ bi moo la ko may lu waaye ñàkk ci sëriñ bi moo la ko ñàkk ko moo la ko xaj te mooy dëggal sëriñ bi du ku dëggaloon la ci ab liggéeyam ku dëggaloon la ci pas-pasam digganteem ak Serigne Touba ku dëggaloon la ci ay waxam ku dëggaloon la ci ay addiyam ku dëggaloon la ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba loolu nag jamono toll na foo xamante ni laaj nañu delloo siwaat ko ba lépp lu waaye di def laltaay ci ak dëggal ak ub sellal ak def ko ngir yàlla du def dëgg dara ngir bëgg ñu tagg ko waaye du bàyyi dara tamit ngir ragal ko ko ŋàññe wala yaxaafuuna fillaahi lawmata laa'im bokkoon na ci ñoom bokk ci jikku yi te sëriñ bi ñaan ko ba tey boo xoolee ad'uuka an taj'alahu daara tuqaa wal ilmu diin wa daara listiqaa mooy nangoo du liggéeyam bu bi ngay dégg jaamu yàlla ga moo ko kawe ku ñeme woon ku ñeme woon da takkoo ak jaamu yàlla ak liggéey ñi nga xam ne yàlla dimbale na leen ñu mas bokk ak moom ci barab bu ñu dalloo bokk na ca la ñu nettali mooy ñoom mësuñu koo gis mu tëdd ci ab lal wax nañu ne foo ko masaa fekk ak lu guddi gi sori sori soo daloo ba yeewu benn yaa ngi ko gis dënn ba di riir ngir alxuraan ji muy jàng di ko tari wara yaa nga dégg course ga di dal ngir tudd yàlla gi mu tudd yàlla waaye mësuñu koo gis mu tëdd ci ab lal di dal waxuñu ne du ko def de waaye ñi daan nekk ak moom wax nañu ne mësuñu koo gis muy tëdd ci ab lal di dalu loola kenn ku ne xam na ne sëriñ bi moom bokk na ci lim yàlla woon taalib yi mooy tëdd di dangu bokk na ci lim daan moytu kon bokk na ci lim daan def mooy nangoo jaamu yàlla te jaamu yàlla boobu mu daan def nag waxtu wu xëyee ba dem ci jàkka ja ba julli fajar ba nopp dem na ci tool ya soññu taalib yi di soññu taalib yi nekk ak ñoom ba timis suy ñëw ta timis yoon bala moo dugg ci kër ga jaar ci jàkk ja julli def ak jaamu yàlla ba julli gee war ci kër ga jàpp ne day war a dallu mu nekkaat ci digganteem ak boromam ci diggante julli ak sëlmal ak jàng alxuraan ak tudd yàlla ci noog ak ci la loolu moo doon ak dundam te boole ca nag loolu ñuy wax xéewlu muy jëfandiku nga xam ne boo sonnee moo lay war a may dolliwaat kàttan ña ko xam te dund ak moom nee nañ ne néewaa na loolu mu ko daan def loolu lépp ngir napp ak bakkanam loolu suñu wax malamtu nafsee wa sax saxtu laxin yàlla suñ suñ ko suñ suñ bi yàlla daf ko defaloon waaye defal ko ñi nga xam ne tamit moo leen tàggat yar leen ci sëriñ la di xalifa bi mas naa dégg muy nettali ne am na ci mag ñi ñu ko wax ne ko bul suñul fal xëy njaay ne sëñ Madu buñ ko masaa indil ab añam waxtu tàkkusaan lañ koy indil nee na ab super la ñuy indi def ca tuuti cere léeg-léeg ñu laal ca xorom léeg-léeg buñ ko jëlee luñ ci gis mu jël mu laal ca dara léeg ñu gis loxo yi cat loxo yi rek laal ci ci noonu rek ci la dëkke woon boole ko jaamu yàlla bu tar loolu la ko waraloon mooy dañoo xamoon ne adduna dara yomb ci li ñu bëgg te mooy ngërëmul yàlla te mooy ak texe te mooy xett nit ñi te mooy yéegal nit ñi damooy mooy fexe ba nit ñi jariñu adduna ak àllaaxira yomb kenn du ko am ci tëdd ak loola sëñ Madou foofu la nekk woon boo xoolee sëriñ bi ak mag yi coono bii ñu daan dal dal daj ci jaamu yàlla ci taxaw ci seen digganteeg seen borom xam nañ ne yëf yi doonul lu yomb doonul lu yomb kon nag bu ñu ko yombal kon nañ ci gën a bàyyi xel ci gën a dëggu ci gën a boole jaamu yàlla waaye te nangoo liggéey bokk na ci mooy li ñuy wax al wafaawu bil ahdi mooy matal kóllëre te mu doon lu jafe lu jafe ci jamono ji sëriñ Madou ku yàlla dimbali woon mu matal kóllëre te loolu boo xoolee ci ak dundam digganteem ak sëriñ bi da nga xam ne ku matal kóllëre ngi nii ndax ni ma ko waxoon ba mu jaayantee ci Mbàkke Kajoor di liggéey liggéeyam boobu ba ñu xëy ne sëriñ bi dem na ci géej gi ba ñu xëy am ñu tàggee sëriñ bi ne nekkatul ci kaw suuf te jamono booba gën ko mënoon naa nekk ndax booba tubaab yi yàlla joxoon na leen pexe jayoon na leen te nit ku baax ku ne ragal ko yàlla ku ne jàmbaar ju ne jànkonte nañu ak yow ba faatu la ci bari kon buñ ko masaa wax gëm ko du ñàkk wóolu sëriñ bi moom la sëriñ bi wax ne sëriñ Mouhamadou Amin Diop da nga ne leen xiina taxayyara kathirun min annaas wan xarafa al baad ñu bëree bëri gëlëm sëriñ ma dum sëriñ ma numbe foofu la ne cas liggéey bi soññi taalu bi ne leen nañu wëyal liggéey bi suñu digganteek sëriñ bi te xam ne sëriñ bi dana ñëw loolu Serigne Bachiru nettali na ko Serigne Moussa Ka nettali na ko keroog ba bàmma ne meles tàbbi ci géej ban nu mes gëm yoo xam yaakaari tas moo doon tool ba màgg na moo leen murid mu ne leen maam na mat na yeewu leen bu leen nelaw liggéeyi leen te jox ko bàmba tukki na kon fa yoon wi tolloon foofu jaaxle am ngëlëmte am ñu ci baree baree bari sëriñ bi taxaw na delloosiwaat nit ñi dalalaat leen ci seen digganteeg seen borom waaye seen digganteeg sëriñ bi mu nemme ko la kum gisul laaj lu la tee ñëw ku doxul mu laaj lan moo la tee dox murit bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa yi tëli ku yoon wi baa nga kale mu naa la yoon wi gàtt na ñëpp mu ne fexe ba ñëpp doxaat ba yoon wi jaar fa war a a teguwaat na war a teguwaat loolu ci bokk na ci liggéeyu sëriñ bi ne muy liggéey bu kawe kawe kawe kon loolu matal kóllëre dem na ba gisatul sëriñ bi waaye mu matal kóllëre keroog bi nga xam ne dem na ba taalibe bi bari mbooloo mi ñëw lépp yomb moom la sëriñ Mouhamadou Abi dina ne sëriñ Mouhamadou Abi Diop dagan wax falamma saxara la lahu atbaan bi ko yàlla tàgg tàggatalee ñu ko topp ay taalibe lépp di ñëw warul sëriñ bi ginnaaw gisul lii mu am nu mu def zaada fi himmatihi wa raa anna shukra nicmati waajibun fanhamaka huwa wa atbaacuhu fi xidmati janaabi cheikh nee na bi lépp ñëwee barke bi ñëw xéewal bi yokk nee na sëriñ Madu loolu daal doon li pastéefam ak yitteem ci digganteem ak sëriñ mu gis ne ah lii kat gis na ne la ca war bu dee xéewal la la ca mooy nañ sant sëriñ Tuubaa te sant gi mooy lan maa ñi ma yàlla boole sëriñ bi boole ma ak ñoom suñu yitte jëpp nay lenn mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa lu ñu am jox ko ko ci doxin woowu ci la dox loola nag ci jamono ji laaj na ne ñëpp cee delluwaat woote ba ñëpp wuyu yàlla tàggatal la lépp ba sëriñ bi bu soxlaa la nga yor nga man koo xaaj ñaar fukki xaaj jox ko benn xaaj bi te boo moytu sa xol a ngay jàmbar sëriñ bi lépp lépp la daan joxe te boole ko ko sant te jàpp ne moomul dara lépp sëriñ bi ko moom man damay jàpp ne loolu ngir ñu mën a jariñuwaat ci sëriñ bi faw ñu delloo siwaat suñu tànk foofu mag ñi tegoon seen tànk fu leer la woon foo xam ne nii ku fa teg sa tànk lu mag ñi amoon soo ko amul tamit da am na la doy ndax yàlla mi ko doon joxe ba léegi yàlla mi ngi ku def noonu yàlla def jox la jox la ko sëriñ bi yàlla mayoon muy séddalee noonu ba tey sëriñ bi yàlla jox na ko doole jooju ba lu ci waay def tamit sëriñ bi man laa defal lool waaye tey bari na ci ñoo xam ne bu ñu demee ci wootee sëriñ bi di dem ba mbooloo mi ñëw ba barke bi yokk li ci ëpp dañuy séddi sëriñ bi te la ñuy séddi sëriñ bi mooy li gën a tuuti te sëriñ bi war a moom lépp sëriñ bi moom yàlla dimbali na ko gis-gis boobu la amoon moo tax sëriñ Tuubaa seedeel ko ne ko li ma Ahmadu jox kenn joxu sànq fukk ak sànq juróom lay bojj jébbal suñu borom daa mbàkke kenn du sa morom yaa tey ba da xiif tas àdduna kooku mooy sëñ Manumbe ñeme woon addee lool jumaa ji ngir bañuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mos la yàq lam fasoo ku wedd laa jal sëñ Isaa xanaa mooy jumaay njariñ ah jumaay Tuubaa ji ah am na ci taxawaay boo xam ne nii seex yi mag ñi xam nañ kan mooy sëriñ Mandumbe moo tax keroog ba ñu tegee xeeroo ba ñii di sar xolle ñii di tàccu ñii di way wayu olof ñii di way arab ba sëriñ Ahmadou Ndumbe jublu see is aqbala ah, Cheikh Ahmadou Ndumbe ba aqbalu naasaan ñëpp dañoo wëlbatiku jàkkaarloo ak moom yu hënni uunahu bi xusni qiyaamihi ñëpp di ko ndokkal ngir mu rafet ci sëriñ bi waaye taxawaay bu rafetam ci sëñ Mustafaa bu rafet ci jumaa ji jëwriñu saalix ba ci saam boo ko saahibul maqaam dee fa ko jot yawmal qiyaam ahmadu lumbe albaar si misaa ko roon nee na mooy jëwruñ saadiq bu dëggal ba nekk saam kenn du ko jot bu ëllëgee yawmal qiyaam mooy ahmadu lumbe albaar jébbal na bàyyi ma Moustapha walam yafal bi man jafaa moo sopp bàyyi Moustapha ma nabi sham lu mbay jox na ko sëriñ Modou Moustapha mësta lekk am mbayam ak njabootu mësuñoo lekk am mbayam lépp lu mas am rek jox na ko sëriñ Touba te nag loolu mu doon def lépp li ci gën a yéeme mësta naw jëfam wax na ne lu addiye bari bari bari su koy def da koy def ci lu woyof lu mel ne njëgënaay wala saako bu oyof duy ko ba mu fees jox ko kenn du ko yóbbu sax demal nga jox ko sëriñ bu sëriñ bu masaa bu taalibe bu ñëwee loo xam ne ni bu doon ci jamono ji ay millions yu bari la doon lépp lay buub joxe nee na bu taalibe bu ñëwee sëriñ bi na ko na xam nga ñaata la. mën ne ko déedéet xamoo ko de mu ne yaakaar naa moom moo ko joxe sax xamu ko tey jii ñaata nit ñooy joxe dugal ko ci internet bi bind ko joxe nañ nangam joxe nañ nangam ana ixlaas ana sellal ana def te li ngay def yàlla kese nga seedal ko ko sëñ Maodo moom foofu la nekkoon bëggu doon sax koo xam joxoon am na ci benn mag boo xam ne nee na am na bis sëriñ Maodo da koo ngàdd ndax nee na booba gis na liggéey bu rëy bi muy joxe loolu sëriñ Cheikh Bintu moo ko nettali yaakaar naa góor gi sax xëy na damay bañ di wax tur waaye te loolu ayub sax jàpp na daaru mi nam daaru naay na booba bu masaa ci jamonoy nawet bu nawet bi jàllee dañu ñëw njaareem yàlla dogal ñu ñëw njaareem kenn ku nekk day am fu muy daal boobu sëñ bi mi ngi daal foofu ci këram boobu si jàkkaarloog kër gu mag gi nee na la ñëwal lu ñëw ni ko sëriñ Madu di joxee te muy jaar ci moom demal yóbbul li sëriñ bi yóbbul li defal li maanaam liggéey bi rëy ci moom ba mu naw liggéey bi ba jaaxle ci ba ne lii daal naa ko bind ndax liy jaar ci sama loxo naa ko bind ci ab kaye bu man koo leeral sëñ bi bu mu ba war a dellu nee muy def loolu ba dem ba waaj war a dellu nee na mu ñëw ci sëriñ Mandoumbe nee génn génne kaay bi tàmbali di wax ne ko liggéey ba nga doon liggéey loo de nopp mi ngi nii nee na tàmbali génn kaay bi woon ko nee na Serigne Modou Lam da koy ngadd ne ko bëggoo dul yàq sama liggéey sama diggante ak Serigne Touba ndax lu dul ban ma ko ma naw ko sama diggante ak Serigne Touba yàq te loolu du ko def mukk soxluwuma koo xam kon jëf seedeel ko yàlla sellal sa diggante ak sa borom soxla woo ci aw tagg ragaloo ci aw ŋàññ jàpp naa ne jamono ji war nañ cee rey suñu mën te mu jafe lool kon loolu jàpp naa ne bokk na ci jikko yi nga xamante ne nii war nañ cee mën a roy Serigne kon kóllëre bu ko amoon laa doon feeñ na ci digganteem ak Serigne Modou Moustapha keroog bi Serigne bi ñibbisee Touba mu jaayanteeg Serigne Moustapha noonu la ko sëñ Mouhamadou Abidou Diop daga na wax wa baayaxal xalifata awwala wahla ca saasa rek waaye nag mubaayatul mubtadi jaayante kuy soog a tàmbali fa lam yara li nafsihi li ma taqaddama martabatan ma la jiitu lépp sëriñ bi na ko li ma ahmadu jox kenn joxuma ko ahmadu murid saadix la ak lam ko dëy ci ay ngëneel ak kawe nee na loolu lépp gis na ko lépp war na ko ginnaaw bal xalafa bi rabbihi ala annahu yaxdimu alxalifa bi adaafi ma kaan yaxdimu wàll nee na waat na ne li ma defal sëriñ bi sa baay ba danaa la ko defal waaye nee na wax na dëgg la ma waxoon def na ko mat na sëkk ca la ma waxoon lépp def na ko ndax li tax mooy kam gisoon kenn la la taxoon muy def kenn la te mooy yàlla suñu borom mooy jëmmi sa ak ak Sëriñ Tuubaa mii mu taxoon bu fi nekkee bu fi nekkul loolu yërëm ñu loolu lépp li mu soxla mooy xam ne ne dara lu ci suñu borom dara lu ci ëpp yàlla mi ko boole sëriñ mi ko suñu borom boole jàpp naa ne foofu buñ fa nekkoon lépp dana defoon kon mag ñi lii la lii ma wax sëñ bi moo am bëggante woon soppante woon salaamatul qadri salaamatu euh, sadri seen dënn ñu laabal ko defaru iisaar gënal kenn ku ne sa bopp gënal la liggéey boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyu ca saxaaba ya liggéey boobu moom la Serigne Touba liggéey ci taalibe bi waaye moom la soxla ba tax na képp koo xam yaa ngi tuddoo Serigne bi ak foo mën nekk ak loo mën a liggéey. soo féetuwut sëriñ bi fii mu defaroon mag ñu féetuwul ko na la wóor na yaay wax ne féete nga sëriñ bi fenn waaye sëriñ bi jàpp na ne féetuwoo ko fenn jàpp naa ne féete sëriñ bi mooy fii mu doon liggéeyal mag ñi te wax ci dëkkam bii ne nii laa bëgg ñu ci dëggal ci sellal ci mucc ci bidaa ci topp sunna ci ci jaamu yàlla di góorgóorlu jàpp naa ne képp koo xam sëriñ bi ak a liggéey yaay wax ne féete nga sëriñ bi fenn waaye féetewoo ko kon nag lu ñuy liggéeyal sëriñ bi baax na waaye nañ xam ne liggéey bi daa wuute alal jàng ci bokk na ci lool waaye nag liggéeyal sëriñ bi ci jaamu yàlla ci ndongo yi ci bëggante jàppante loolu bokk na ci te loolu mooy li fi mag ñi nekkoon kon xëy na foofu la ñu bëgg a tënk seen kàddu di jégalu mboolem kàddu yi lu ci juum rek nañ xam ne ki doon wax lu ci jub nag nañ xam ne ci ñi ñi ñu yabaloon la ak suñu borom subhanahu wa in uridu illa al islah wa ma tawfiqi illa billah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ñu jëmale ci jabaru sëñ Mouhamadou nga xabaar yëpp sant yàlla bu baax di leen sant ci jëf ji nga xam ne jëfal ngeen ñu ko mu kawe bi lool saa yore moo bàtti na li saa yore ji mooy seen jëmm yi toog kenn képp mënoon na ñëw te kon mu doy lu sëkk maa ngi barkeel ci Cheikh Mamadou Ndaxa Mbacké waaye ngeen ànd ñi ngeen ànd yéen ñëpp boole ko ki seen sonal ci biir waxtaan bi tindi fii bat loo xam ne defar na bis yëpp pare ànd ko di ko xeet te ñun ñu naan ko lool wallaahi asim mën naa ci bis bu bëree bëri ba xaw ko fa waaye nag kenn ku ci nekk. lañ la dénk na mu toll képp na nga ñëwee xam nañ ne bis bi moom yëg yéen ñi koy wax ñun nattaluñ ne yëg ngeen boole jëfal dikk kon maa ngi santaat yàlla bu baax te rafet nañ njort bu baax a baax ci ne lañ ci jublu woon ngir barkeelu ca lu mbéga danañ ko am incha allah rabbi jërëjëf yàlla na yàlla fayal ñu leen barke xam naa lu bëgg a loolu nañ ci wax ko waaye dana ko xel yeggale rek xam ne cant gi moom lu tàgg laay am ci yéen waaye ñoo ngi ñaanal xam ne moo nekk suñu borom tool yi ko am wér ndax tax na lu xat la sax ñu njaboot nag waaye di santaat seen cheikh bi bu baax a baax a baax bu baax ndax dem nañ fa ñaari yoon nga yett waaye bu ci nekk nan ñu tata nan ñu tatagale moom jékki jékki raw raw na suñu yaakaar ci moom. ndax xër nga xër gi moom kon moo ngi sant bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom daal moom yàlla fayal daal sàmm ñu barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf. dëgg suñu xol lool ndax dañoo xam ne gëm doo xam ne taxawu nañu bu baax danañu keeba jërëjëf suñu keeba Mbour Mbacke Thiam ak ñoom seen boo leen seen dara ay lekk seen doom nga xam ne bàyyi asan lii ñu def ci moom def na ci ñun loo xam ne asaka yi sax dellooguñ ko waaye nag dañ ko delloo mooy parce que di ko fàttali ko di ko ñaanal saa su nekk rek suñu borom xaaral ko àjjana te yërëm bu baax seen taxawaay mat na yéen ñëpp muy waa kër Baye Assane waa ñu la xam ne ku ci nekk indi nga loo xam ne wallaahi loolu tax jëla ko waaye seen dayoo seen tolluwaay seen xol seen bëgg noonu lañ fi ñëwee kon jërëjëf jëf di ku nekk boo koy woo ni nga toog da nga koy wooyee waaye na mu toll la ñu sëb yàlla yàlla fay leen tax sew kii nee nañ weñ ñi de moom ñoo ko defar waaye li ci kaw de moom dañ ko am danoo bëgg nag nga fasaaleel leen lépp jàppale incha allah ci barkeb sëñ mu dund benn xamal amiin amiin yaa rabbal alamin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin